koy kii kii mooy ñànku bi kii sama xaaj la sama lépp la moom daal suñu kër lay ñëw sama néeg lay fekkante mhm. ni mu mel ni daal yàllaa ma boole moom mhm. ma nangu ko mhm. moom daal góoru Saloum moom moo ko yitte woon donc il faut mu indi question nag waaw yow yow ku baax nga te comme li ma lay faral di wax rek ku baax moom ku baax rek lay xam moom am na soxna wala amul soxna moom moom célibataire la célibataire la waaw am na célibataire yoo xam ne dinañ koy man jël bismillah waaw dara naaw ma sant yàlla maa ngi jul ci yent bi maa ngi sant sama ñaar waa jul bu baax baax baax sa sama sama sama yaay maa ngi koy maa ngi koy maa sant ak sama yaay sama papa di wax sant nga xamante ni moom moom moom fa indi moom sama xarit la xam nga foo xam ne dëgg damay nekk néegam. Mhm. walaay dem ñoom seen waa ñoom ñoo ma ay ceebu ñebe. Mhm. yoo xam ni day day day safkaani kii mi magam bu jigéen bi dafa daa mën togg nag waaye teewee ma day saf day saf day saf tabakaan yi waaw mosoo kaa ñam na xam naa. non mosuma ko ñam waaw waaw di nga ko ñam waaye dafa dafa dafa saf kaan yi yaayam dafa baax yaayam day su ma ñëwee damay salax soow chaque jour damay ñëw salax ma soow ma def ko ci fonde bi dóol ma dem maa ngi koy bu baax baax moom affaire bi néegam laa ko doon fekk ah ay waaw dama ko xanaa comme doo ko tegoon foofu après man man man ko doon sàcc foofu. Hmm? a ko doon sàcc di ko ñoom jox sa faaba di ci gis foofu affaire saa affaire dafa jeex xaw ma ba kaa changé ma ñëw ñu fal ma kër ga ma nekk chef ma ñëw ci yëg affaire bi gisuma ko ma ñëw wax man damay gisee yii ni mu balee sax damaa tiit sax waaw donc tuuti laa doon am rek mu ñëw fekk fii lépp nii léegi nag sama moom saa daa am problème. mooy foog mu uf góolu Saalum yóbbu ko ko ndax moom gis na ka gis gis na ñaleñ fu góolu Saalum waaw. Euh, gis nga sa papa waa Sénégal waa Afrique ak waa àddina yëpp mënuñ jeexal li fi nekk. mënuñ ko jeexal mënuñ ko jeexal déedéet bu fekkee sa papa moom li nga ko doon jox mu jeex mu ko tiital ne ko na xelam dal. waaw waaw na xelam dal. waaw mhm. waaw. ci daal mu ngi nii waaw. yaa ko defar. man maa koy defar man Habib Dia. Mm. Mhm. loo koy defalee. kii euh, maa ngi koy defaree juróom-ñaar ba juróom-ñetti gàncax ak alxuraan ni karim dafay raxas deret dafay xiifloo nit da koy lekkaloo de facilité digestion comme ni ma ne ko waxee day yokk ndoxu góor yokk walax jànnu góor fajul hémorroïde mais da koy dalal mais nag. loolu la nga te yokk kàttanu sëy yokk bu ama ama ama ama am solo xam nga man dama taxaw Sénégal yow war nga ma seetaan sax ma ne. kenn du ma xam dem gàcc ci jigéen. waaw loolu man maa ko wax. kii moom wax na loolu nag ba léegi maa ngi ci te am naa yaakaar ne sa papa ba mu ko jëlee. waaw keroog bis boobu. mu ko jëlee. sama tante daa bëriante sama papa yow dem doxante <coughs> loolu moom du lu bees. ci kaw ah! du ci lu bees de. te benn kudd rek la man tuuti laa laaj. dina ma bëgg. Mhm. nga jox ma benn. Mhm. wala ñaar. mooy mhm. yóbbu ko. <coughs> ma demee après ay ñaar ñaar lay ñaar. maa sa yaay bokkul sa sa bi bokkul woon ci nii ci jigéen ñi nga xam ne dañ naroon tas dem. ok kon yow dinaa la dimbali. <coughs> doon dem maa ko ne ko kaay góor saa moom laa ko jox moom guddi moom moo ko defal sa baab mu naan ko bi mu ñu ne lépp lépp hmm? ñu ne ma nice. Hmm. affaire nag ñu topp ma est-ce di nga continuer di nekk chef parce que gis nga man bu dul góoru Saloum même sa papa bu ko noonu gisul dara sax dana xam ne am na leneen lu ko dal loo xam ne wuute nag lu naturel. su boobaa dañuy jaar ci listixaar man man mën naa jël ñeent fukki nit ak benn 41 personnes par jour kenn ku ci nekk ma defal ko listixaar buñ suulee sa liggéey ci buntu néeg bi dama koy xam buñ ko wékkee mu yanantaalu dama koy xam lépp loo xam ne def nañ la ko te mu lay gàllankoor même bu dul sax ci wàllu kàttan ak sëy ci wàllu gàllankooru àddina ci wàllu wërsëg ci wàllu liggéey ci kayit yooyu lijjanti ci lépp lu mën a doon amuñ dara lu ñu ragal ci feebar boo xam ne médecin yi xamuñ lan moo ko waral xamuñ lu koy faj ak feebar boo xam ne sax xam nañ ne feebar nangam la mais mënuñ ko faj am sarax yoo xam ne boo ko defee ak ñaan ko da mën a dund ak feebar bi te doom problème incha allah. léegi léegi mu yóbbu su ko joxee affaire yi baax xam nga xam nga la affaire dinaa fexe moom ñu defa ko la nga xaar. traite pour mu am doom. wax moom moo kii amuñ doom. amuñ <coughs> amuñ doom amuñ doom léegi. kii libéré ma ñaar. dinaa la jox ñaar mais boo demee nekk mu envoyé ma message WhatsApp. ci sama numéro. waaw 77 378 78 18 nu ma fa envoyé. message WhatsApp su fekkente ne daf ma bëgg a woo nag na woote ci 77 571 77 07 mais buy envoyé message WhatsApp bi day wax man sa papa mu tudd. Sanex Samb. danaan man la Sanex Samb sama yaay mu ngi tudd nan. su waaw moom yaayam. yaayam wax turu yaayam yaayam fàtte naa turam. wax turu yaayam gaañoo dafa yàgg sax waaw. wax turu yaayam waaw. wax dama bëgg nga xoolal ma lan moo waral sama diggante ak sama soxna aw ma doom boobu ba léegi mu wax turu soxnaam. Ah. mu dugal 5000 orange money. waaw wala wéy ci numéro boobu ma la jox. waaw bu ko defee rek incha allah muy 378 bi. waaw ñu defal ko li saxaar man dinaa ko wax li ko teree am doom incha allah ak ñi tax mu am doom ci kàttan yàlla. dinaa fay ñaari. moom traitement yi fay ñaari jël wala fan la. non traitement bi oui pour man maa ko proposé. ni ñu koy defee ak loolu yëpp moom nañ déggante whatsapp rek. dinaa la ko expliqué incha allah mais ni ngeen jëkk a def moom loolu baax na. waaw waaw ni ni ñam bi mu ko ñam. waaw léegi immatrié la. bàyyi bàyyi bàyyi la bàyyi bàyyi la. dinaa fay. waaw waaw tax nga bàyyi sàcc nag. waaw waaw léegi xam nga kër gi. fii mooy kër gi. waaw yow ni ngay def nii moom dafa bëgg papaam. Ah, waaw sama gars la waaw bëgg papa. parce que damaa bëgg nekk chef. ah c' est vrai chef ma fay chef lii mooy sama nekk chef bu <laughs> ma def chef. ma ah. bàyyi ma dem. <laughs> waaw ah, Habib waaw kon kontaan nañu baax a baax. kon baax na jërëjëf waaw waaw waaw man man kii ma ñaan rek. yow amul benn problème kii ma ñaan yow euh, dama la jox sax lu ëpp ñaar ndax yow sama nit nga di fi indi ci ay nit kenn xamul lu toll <laughs> yow nee nañ da nga bàyyi sàcc waaw waaw Sadio dama doon teg loxo rek ok jërëjëf waay jërëjëf sama laanee mag wax naa nga gëf su ma ne laa bëgg naa la nga war maa gëm lii rek may jotaleeg yow magum jëm mu toll ni man wax la ni ma lay wax la yàkkamti la nga war a ñëw nga ñëw fii naan bu ma la nee woon kan ngay bëggal koy bëggal ma ma toog laa nga war maa toog fii man may ma toog bàyyi bàyyi bàyyi gannaaw bàyyi ma ko baax baax na baax na baax na baax na baax na baax naa ni. sama naa la. waaye waxuma loolu nag yow tamit foo toll ci li ma la yónni woon lan affaire bi. dem nga Saalum wala demoo Saalum. mi ngi mi ngi nii. bàyyi foo jëlee lii yow. ah toog wér waatal. lay la la. sama naa la bëgg naa la nga wal ma. ma ne la taaw day niru taaw. mbalaan du mbëggeel waaw waaw xel mel mbakk noppi jëng jëng jëng sama naa la bëgg naa la nga war ma laay bëgg ma yaay sama banaana eh! nga bëgg ba bëgg ma lee eh! mu bëgg la bëgg la lee hmm. ngay bëgg la bëgg la lee yaay sama banaana jox ma ko ah daa may ma ndox ma naan li ngay way neex na de daa may ma ndox ma naan ndox waaw yëg yëg de xaar xaar xaar xaar xaar xaar ka bàyyi bàyyi kolo kolo say sani bàyyi ko bàyyi Modou Modou ma Modou ma ka kolo sa sango bi daa mel daa ay ay téñ xoolal ma xoolal ma xoolal ma ci kolo nag set na set na amoo ay dañ dañ set na set na set na xoolal na set na xool naa ko dama mel ni nag laay seen côté nag nag xoolal xoolal ko bopp <laughs> nag du nekk ci bopp ah, nag du nekk ci bopp wax nga rek doo soxla leneen xool fii lii du mbët déedéet foofu mbët newu fa boobu karaw rek a fa ne. Hmm. karaw rek. Hmm. karaw rek. ka jox sax baala mi waaye man sax baala xam nga xam naa xam naa kii kii sefeel ah, yi ma jëloon do do la la damaa lang. ah ah damaa yoroo lang nag. passé laa jógee yoroo ma passé. nga nga jógee foofu ba fii. damaa lang xëcc xëcc ah, xëcc xëcc. defal ndànk saa neex ah. ah yow am nga doole boot ma wala. ah am nga doole boot ma. mënuma laa boot nag. samantu bi may ma ko. bii nii naa la ko may. indi leen. léegi nii waaw jox ma léegi rek ma jox ko ma jox ko ma jox ko wàllu mu dencal ma ko boo ko laajaat de. Hmm? boo ko laajaat waata waata dëggantaan. xanaa yow sàcc nga. boo ko laajaat de waaw takkali boo ko laajaat eh xaw ma woon heure xaw ma. léegi xoj yaa xam moom bii yëf li xanaa ñaari weer la eh wala ndànk kuddu ne nga comme noonu rek. waaw benn kuddu. waaw def ndox mu tàng. wala kafe wala meew. lifton. waaw yéen baax na. waaw doonal meew ndox mu tàng. café waaw meew lifton lifton doonal. moom daal naa ànd lu lu tàng lu tàng daal bii moom bàyyi ma denc ko fi. looy doyee lii. da ngaa tiit xanaa. ay. bàyyi nag bàyyi nag. kii am na doole de. waaw xam fii ak fan yu néew damay am jabar. waaw bàyyi ba nga ma jox la ko. Mm, déedéet. indil ba nga am jabar ma jox la ko. non damaa fàtte. bii du ko jël. ñaa ko kii amul jabar waru koo jël de. xaaral day gaañ. dama naan dama naan foog man àq dina ma ci toog faama la. waaw faama la. ma jël laa ko doon sàccee. waaw maa ngi delloo ko fi moom. xam ah, ku ko ak ah, du ma ci topp yow jël la boobu dina yàgg waaye mu jox faamala bi. <laughs> ay li nga lijjanti boo ko xamoon. ah waaw yaay sama papa. lii man yaay sama xarit. lii bakkan la bakkan. man bokk maa mu numbe. bakkan lii nag lii a joxe bakkan.